waaye maa ngi def sama déclaration tey ci gàmm gii na xam ne man bàyyi naa APR bàyyi naa APR bis tey parce que lii problème bi APR suñu noonu lañ présent noonu kër Cheikh Ibrahima ñas la su fekkee ne ñeneen ñu ngi ko fiy jàppale ñooñu dañuy wax pour seen intérêt bopp ak la ñuy mos man je m'en man topp ma président ma koo xam gisu maa gis musuma ko ñaan su amee benn lettre bu mu gis bu bind MC Niass na ko génne ñu publier ko te duma ko soxlaal ba ilaa yow mu diin yaa ngi dégg li may am man sama barke baay bi ci laay dund ba dee yeew moom alaaxira ndax loolu sama baay liggéeyal na ma ko ba pare mais lu em nii li nga xam ni mooy gàmmu international moo dina bàyyi gis nga dem oto yi ñu fi su ma ko damay rus su ma di toog CRD yéen bokkoo leen ci budget Sénégal yéen waa Médina Baye Niass ngeen di dem di toog CRD ba pare ñu jox leen cinq camions loo xam ne manque lu am ne mel ni Médina benn village bu ndaw la vingt kër moo fi nekk cinq manque ñuy dem di càng ndox yi amuñ foo xam ne koy amuñ sax laa la wax canalisation xoola fii ñaata yoon la fi Macky Sall gagné du benn du ñaar du ñett ñu rey suñu bopp pour mu am ndam ñaari yoon yépp yu ko am fii Médina daf ko fay am cent pour cent lu laaj waaye maa ngi wax débat yëpp nañ ma déglu ne xam ne makki sàll mooy noon bu gën a mag kiy bañ Cheikh Ibrahima Niass buggu leen te du leen bëgg ba faw day naxante ñun xam nañ lépp kon maa ngi wax taaliba bàyyi nañ am fulla mm. wan Macky sàll gannaaw képp kuy taaliba bàyyi na nga ko wan gannaaw gis nga gàmm gii ñoo ko yàgg defal suñu bopp te danañ ko defal man de bis ni ki tey bàyyi naa Macky Sall dama ko doon jàppale ngir yàlla te jàppale ko ne moo gën sama candidat waaye nag man ku ma bañ ma bañ te dafa bañ sama dëkk moo tax ma bañ ko waaye nag bañuma ko ngir Sénégal mu ngi liggéey bëgg naa ko ngir loolu waaye bañ naa ko ngir ñu bañee sama dëkk te ku ma bañ ma bañ amul lu muy def dem na fépp waaye mari na rek la tuutil ci boppam moom mooy tuuti waaye ñun tuutiwuñ nga baal ma président nga baal ma ci wax ji waaye ñun tuuti tuutiwuñ soo ñu bëggee tuuti yow yaay tuuti waaye ñun tuuti tuutiwuñ yaa ngi dégg ñu ngi ko respecté nag bu baax en tant que suñ président ñu ngi koy jox cëram en tant que suñ président waaye ñun waa kër Cheikh Ibrahim danañ ko wan ne ko dëgg-dëgg danañ la bàyyi te képp kuy taaliba bàyyi nga am sa ñaan bu ko ko ñaanalati wasalaamaaleykum wa